sëriñ Mor Diouf Diatty sëriñ Mor Diouf Diatty mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1857 ci dëkk boobu nag di Diatty Mbay jati nag mi ngi ci suuf soosu nag di Kajoor ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1857 muy doomu soxna Binta Cuun ak sëriñ Maysa Soose Juufa am na na ko mu bokkal soxna Binta Cuun ak sëriñ Maysa Soose Juufa ñu mën cee ràññee nag sëriñ Suleymaan Juufa ibnu soxna Bintu Cuun ibnu sëriñ Maysa Soose Juufa ak moom sëriñ Mor Diouf Diatty ibnu soxna Bintu Cuun ibnu sëriñ Maysa Soose Diouf kenn rek la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ngir xamale leen nag kooku mu bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor nag moom mooy kan muy sëriñ Souleymane Diouf moo nekkoon nag magam ñu bokk nag wenn waajur wi sëriñ Souleymane juuf mi nag moo meññi sëriñ góor mag Diouf mii sëriñ góor mag Diouf mi itam waajuram nag moo ko jëloon nag di sëriñ Souleymane Diouf jébbal ko nag rakkam ji nag di sëriñ Mor Diouf Jati sëriñ Mor juuf Jati itam nag moo ko yar nag ci ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ginnaaw bu mu ko yaree nag ay at la ko jël nag doon ne yow de sama doom nga sëriñ góor mag juuf mag sa waajur nag ñoo bokk nag waajuru góor nag ak wu jigéen fee ma jógee nag amoon fa nag lu baax muy sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim foofu itam nag laa la bëgg a yóbbu la ma fa jëlee nag amee ko fa ginnaaw bu mu jëlee doom jooju nag di sëriñ góor mag juuf indi ko nag ci loxoy ku baax ki sëriñ a Seexul Xadiim la Seexul Xadiim itam nag sakk itam nag ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu jël nag doom doomu sëriñ Moor Juuf jati mi jàngal ko yar ko bi góor mag juuf nag amee ngërëm itam nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa suuf soosu nag di Toffi Diouf ci loxoy waajuram itam nag la nekkoon sëriñ moor juuf Diatty mii dëkk bii mu sanc itam nag sëriñ Mor Diouf Diatty itam nag moo ko jox ndigal itam nag mu sanc ko muy Toffi Diouf ba naga ne itam nag relation boobu ñaari njaboot yi itam nag ñu ngi koy wéel muy njabootug sëriñ Mor Diouf Diatty ak njabootug sëriñ góor mag Diouf bi mu matee dal alxuraanul karim moom turandoo ngën gi mi def sallallahu taala alayhi wa sallam wii waajuram nag sëriñ Maysa Soose Diouf mii dëkk bu ñuy wax nag waja nekk nag ci wetu dëkk bii nag cil ma xambaakool ci dëkk boobu nag la jànge alxuraanul karim ci dëkk boobu itam nag la jànge nag xam-xam ginnaaw bu mu jàngee nag ba noppi tombeek nag sëriñ Tuubaa seexul xadim taxawal nag li ñu tudde nag yoonu murita defoon na fi nag ab tournée nag bu yaatoo yaatu nag moom seexul xadim ca tournée boobu nag la gisee woon ak sëriñ Moor Juuf Jati mii seexul xadim nag di ko xamal ne daal suñ boroom na xamal na ma ne war naa laa xam ginnaaw bu seexul xadim nag delloo Mbàkke Kajoor la sëriñ Moor Juuf Jati dem Mbàkke Kajoor jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xadim bi seexul xadim nag bàyyi koo Mbàkke ñëw Mbàkke Bawal àndoon nag mbooloo mi ñëwoon mbàkke bawal bi muy sanc daaru salaam itam nag bokkoon na itam nag ci mbooloo mi nekkoon daaru salaam tuubaa itam nag noonu moo tax nag soo delloo ci mu mu dul moustapha mbàkke wala seeday cheikh mamadul faadal mbàkke nañu wax ne fii tolloog armeer yi ay tool la yoo xam ne nii nag sëriñ moor juuf jati mii nag daana fa bay soo delloo nag ci marché bii nag bàyyi lamin jóob dép taalifkat dëkk itam nag tuubaa ci marché bii mu defal nag sëriñ moor juuf jati ma wax nag ngërëm lu mu nag ci ku baax ki sëriñ doomu seexul xadim yi nag niñ ko fonke woon tool yum daa bayal seexul xadim nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba addiyee nag yum daa yit seexul xadim farlugum nekkoon daal ci ginnaaw seexul xadim lañu taalifkat bii nag di bàyyi Lamine Diop nag di nettali ci marché nag bu mu defal nag sëriñ Mor Diouf jatti nag ñu teewlu ko ma tagg jàmbaar ja sëñ moor juuf mu jatti mi le lim def ci lislaam sëriñ Touba de seere na ko sëñ moor de askan wu taaroo taaru sell cosaan la feeña feeñal fa ay ndam nag yu kenn amu ko baayam ba sëñ Maysa Soose Diouf la kenn gënu ko yaay yaayam ji soxna moom jàmbaar yi jën mëgu ko ku teel a xam la sëriñ Tuubaa te teel ko gamit ngir sëñ bu mag bii ba muy dem géej ga tàggu na ko sëriñ bi wax ni sëriñ Moor Juuf liggéey bi ma jëm luy seen njariñ lépp tey ji ak ëllëg bawu ko ca at ya muy jàng alquraan ca feefa kajoor la gis sëriñ Bamba daal koy sopp dem topp ko daa tàggu ay kilifaam boobee ba ñépp nangu al isnu sartun ci nangug mbir li ump ko ngir booba sëñ baa ngi doon wër képp nit ku fi baax dox ci réew mi ngir wàññe lam yor waaye kenn xamu ko sëriñ bi bég lool ci sëñ Mor Diouf mu jat timile ba mu jébbuloo ni ko nangul naa la daldi ni ko sóobul ci sas wi mu dend ak sëñ bi lu mu ko digal mu def ko def gu rafet goo xam ni kenn mënu ko te booba daara ja néew naw nit lu tuuta fa ne liggéey ba metti na xiif baat metti rek mu takk ni fiit ndiggam laxasaayam googa tekkiwu ko mooy man ca njàng ma ngir xam-xam bi kenn rëwu ko te tool yi sas yi lu mu rëy rëy mu bay ko mu set sëriñ bi wax ko ni Mor Diouf yàlla nangu na ko lii ngërëm dañu leen woon yàlla na buur bi nangu kem nim nangoo addiya yi sëñ moor ji sëñ bi waxoon sëñ moor de moom nangu nan léppam te sikkuma ko seex mustapha abdu xaadir mbàkke moo nu xamal keroog ba ñuy wàcce sëñ moor juuf mu baaxe ñu ko njël beenu tuubaa ba sëñ bii wër dëkkam bi la wax mbaa feefa daaru salaam la woo ko nag wàcce ko sëriñ bi wàcce ko dal koy seexalit ci lu fes te loolu jiitu na tukkib géej gi at yu tak wala fii nag nee ñu sedd du yey njëkk gën sëñ moor mi njëkk koo seex gaa cerno nag la ko booleel cerno tagg na ko sëñ Moustapha Abdou Khadir moo ñu leeralati njàmbar ga maam cerno baayam wax mu feddli ko maam cerno daa wax ni sëñ Mor Diouf de gëm gi mu am ak fit wa njàmbar ga ak njaxlaf ga kenn dëbu ko Cheikh Moustapha dani fii armeel yu njëkk ya ne la ëpp toolam la nekkoon fépp faaxu na ko li tàmbalee foofa bay dem gaar bu ndaw fala daa bayee li muy ëddiyal sëñ Bamba kenn mënu ko sëñ Fallu it daana waxtaaney mbiram lu bari te booba yàgg na lool lool diir ba kenn xamu ko nee fii jumaa jile nekkay fa bay te booba ne fondement bi nii de kenn nattu ko daaraam ja mooy fii jumaa ji nekk jàngale na moom mi di sëñ moor sëriñ fallooy ka nettali ko sëriñ bi it da ko daa woo booba wàcce na ko jox koy liggéey ngir liggéeyam yooya taamu na ko ay néegi ràng la daa doon néeg yu mucc ayib sëñ Moustapha Abdou Xaadir mooy ka wax nañu ko njéeréem jolof fu sëriñ tuuba ne waa mu ne fa liggéeyal sëriñ Touba te wàcce na ko wëccul sëriñ bi le wëccul benn yoon fu mu ne mu nekk gëm gi nga am foo nekk maa nga fa sag wet loo du git ma dugg Touba googu nag la jote ngërëmam ci atum 1891 laataa nag Cheikhul Khadim nag di dem ci géej gi mu delluwaan nag ci dëkk boobu nag mu cosaanoo di jati mbay nekk fa foofu itam nag la xaar Cheikhul Khadim nag ba ni Cheikhul Khadim ñibbisee bépp àddiya nag bu mu daa indi laataa Cheikhul Khadim nag di ñëw nag ci géej gi maam Cheikhna Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag la ko daa jébbal bi Cheikhul Khadim nag ñibbisee ba dem gànnaar demoon na gànnaar nag fekki ku baax ki Sëriñ Touba Cheikhul Khadim bi seexul xaddim nag demee céyéen itam nag daana dem céyéen itam nag di fekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi seexul xaddim demee njaareem itam nag daana dem njaareem itam nag di fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu sanc nag ay dëkk nag yu takkoo takkoo takku ñu mën cee ràññe nag daaru xalimul xabir ñu gën koo xam nag ci daaru xalim ak dëkk bu ñuy wax nag daaru mbooy daarul minan daarul xuddoos ak dëkk bii nag di daaru juufa ci daaru juuf gii sax nag ci la génnee àdduna dëkk yi yépp nag mu ci suuf soosu nag di kajoor ci diggante tiwaawoon jogo nag ak mbooro defar yàlla nag yu takku ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alioune Diouf mën cee ràññee nag sëriñ Mor Mati Diouf sëriñ Mouhamadou Lamine Touré sëriñ Moussa Diouf sëriñ Makebe nag ngaa xam sëriñ Paate Kan sëriñ Abdul Karim Cuun sëriñ ma Dikke Njaay sëriñ ma Kumba Sekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu mu defar addiye yooyu mu daa yit nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñii nag la ëppoon nag lu daa yónni nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wala buy dem nag ànd ak ñoom nag ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alioune Kebe sëriñ Modou Ndiaye sëriñ Ibrahima Seck sëriñ Modou Guèye Diaty sëriñ Demba Koura Mbaye sëriñ Mbaye Diaw Ndiaye ak sëriñ Saliou njaay soo delloo nag ci way yii ko sëñ Gora mbay way nekkoon nag ab taalibeem mag ñi wax nag lu takkoo takkoo takku nag ci daara yooyu liggéey nag yu fa sëriñ moo Diouf Diaty nag daa liggéey addiye nag yu mu fa daa dajale nag du ko it ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ay kàddu nag yu Seexul Xaddim nag jëmale ci moom xar baax itam nag gu mu yoroon tundu kajoor wow nag naw du ñu xamalee nag dundug nag sëriñ moor jati mi ñu teewlu ko aouzu billahi min asaytaani yal na nu yàlla féewaleeg saytaani alhamdulillahi nu sant yàlla rahmatuhu yàlla yërëm nu yàlla subhaana addinaa kadib waraa kon du bàyyi kenn ak waram yi moo bon nafaana allaahu bi barakaati ma yëkkatee ko sëñ mamar juf jatti xanaa xamoo sëriñ mamar juf jatti mbirum xiyaarul aalamin du tuuti seetal ba muy riñaan di fekki bamba ngir yéen a tërbiya liggéeyal bamba mu wàcc tërbiya jawal si jatti fekki sëriñ semu magam fa jatti daana jóge njaareem ak di saxoo yelwaan ba réew ma di ko yéem daana saxoo màjjal di yut sëriñ ba lii la sëñ ba saxoo ba añam ba daana sàmm ay julleem du bàyyi waxtu daawul naqartu ci mbokkam du ñaxtu su ngeen xamoon fa mu dox ak waa jatti ngeen dal xam ne lii la yàlla atte fekk na bàmba ràngoon ko midaay ya te mus la fonk àdduna jaayu ba mu jógee jatti tofi la sañsi ba mu fa jógee fa daaru mbooy la sañsi daana jógee tofi liggéeyi biir mbooy te daana am pas-pasu toolam ba du boy kii am na zahir boole koog baatina lam daa dimbanikoo moo di borom ba xam na ca toolub mbooy ba daawul xaajoob jant daawul liggéey ba sonn dëkk ak laxasaay ngir di liggéeyal bamba lii du naax saay daana xëy ko gontuy sàkku barke ca toolum mbooy ba garab ya am na barke barkeel ga barkeelal na toolam ba ca mbooy wallaahi tool ba yëggatil ba dig mbooy bambaa ko jagleel mbooleem sawu jant mu boole koog murit yuy xëy di gontu defoon na mbooy toolub liggéeyu kaayam lu ñor ca toolam ba mu yut ko xaadim di yóbbu ak diw boole koog hidaayaam boole ca jox sëriñ tuuba ay doomam daana sarse ay wago jëm njaareem moo fonk addiya te daawul yeexal sëriñ bu mag ba di yóbbu ca meññat may ñor ca tool ba muy dëkkee yónnee fa sëriñ ba ay ndaw lii la saxoo ba bamba yónnee ci moom ndaw ba mu ñëwee diram ba nuyu bamba bisub keroog lañ ko rof si ba bamba janoog moom ni ko yaaka farlu ahmadu sàgganoo te am nga farlu mu ni ko lantinoor laa du ma tey ak diw lu ma fi am seeral ni mbàkke day ñëw daam ni ko maay daam saan du ma yàqu diw daa la koy fulal yow mal xiyaam mu di yiw foofee la sant daam ni ko mbàkke bal la yaa tax ñu xam rasulullahi taala fan yam fa am siyaar ba del si daaru bamba fulaat na ko xóote alquraana mayamee siiw na biir na waa soodaana te am na zaahir am baatina xam-xam moo ñàkk jam-jamub moo ami ndam ma wax la xar baax yi amoon ca baawoon soo ko xamul danaa la wax la ca xewoon ma wax la la mu njëkk am ci njébbal ma mbaj ca siin te naa ko xàccal ca mooma at la xàcc ngir seen wax ja mu daal di tuubaat sëñ bi far ayib ja danaa la wax xar baax ya mu def fa ngaa xam kenn mënu koo lim te mënee su koo xam ma xonn Fatim moo ko njëkk topp ma wuri Anta Mbay ak topp ma sekk wali Njaay ak Musaa Njaay ak Maysa Njaay ma wuri Njaay ma du Njaay ma ndaw ku ndaak moor Binta Ndiaye Safa Ndiaye Mamar Aram Mor Samba Gueye ma Ndiaye Masamba Ndiaye Mor Absa Ndiaye Assane Ndiaye Masamba Fa Binta Masamba Soxna Ndiaye ca yooya at la may ya daal di tuuru ca yooya at la daal di sañc daru ca mooma at lañu ko may muy seexal te maa ngi lim waaye du tax ma jeexal sëriñ Ali yu Juuf may doomi baayam moom dafa teel a loo ki gaayam sëriñ Moussa Juuf rakkam moo ko seexal sëriñ Mor Mati doom ja moo ko seexal sëriñ ma xujja cuu nit moo ko seexal suruum nga jeexuloon ko nit du jeexal sëriñ ma kebem ngaa xam moo ko seexal sëriñ ma dikka Ndiaye it tawut Touré moo ko seexal moo di rijaalullahi am na xéewal sëriñ Paate Kan ca daaru moo ko seexal sëriñ ma kumba sekk daawud jeexal ñettale di xëy di buuru ma dellu wax la xar baax yu yàggoon sëriñ ma marmati ma des tiwaawan daa fa woon dem di siyaari njaaréem ba dem tiwaawan yàlla dal di ko fa moom feeñal na xar baax yu ëlëm mbooloo ma xabroom ba saw na fees na dell ak meew ma tubaab ya waaru dong yépp yuuxu fekkoon na yàlla dogal ni fii la ruugay jeexe te soo xaman ni dee amoon nab soppe mu yegg njaaréem ba siyaar ba noppi suuf dellu jël baneen doon rijaalullaahi ba am wilaaya te wayaf wallaahi xanaa dandul waaru ndeken nu waaru sëriñ ma xujja cuune weetal daaru sëriñ ma xujja cuun moo doon aalim ba moo jiite woon yoon wa te doon lampam ba kii doon rijaalullaahi raw na góor ña njàmbaar ga tax na jiitu woon na góor ña sëriñ ma xujja cuun ma feeru sañci ak ibra cuun taawam bay door a denc tibbal na doomi nday yaak doomi bàyy ya kenn fëndewul ñépp a ngi am hidaaya baruum nga jeexee muy wuy ji boroomam la rekki mbóoj taar bay war ca fasi naaréer ma wax la waaja war a jooy sëñ abdu sëriñ maalik sàmb amul woon lul habdu dunyaa su doon kërug rijaalullaahi kon sëriñ mamar juuf du dem billaahi nitti fan ak juróom-ñeent la ni la woon ci diggiwu gàmmu alxemes la fab woon yowmal jumaati la ca waxtu geewa keroog la xuurul xay ni ñéppi teewe keroog ba muy woote di buub lu barab ba la jàpp am riñaan bay fekki bamba xam naa keroog ñooñ xuurul xay ni bëgg na ñooy teeru ruuga ak sural amina sëriñ woon ñu mënoon cee nag soxna faati cuun mook soxna faati cuun itim nag am nañ benn bant doom nag ju mu njëkk a gisa muy soxna faati maahi juufa yoroon na soxna suñuy wax soxna seynabu kene mook soxna seynabu kene itim nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññe nag sëriñ daaru seynabu di kim faye woon sëriñ tuuba seexul xadiima sëriñ elaaji ceerno juuf seynabu ak soxna ami juufa yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna xadi cuun mook soxna xadi cuun itim nag am nañ ak njaboota ñu cee ràññe nag sëriñ abdul xaadir juufa sëriñ abdullahi xadi juufa sëriñ abdu juufa Diouf soxna Safiyatu Diouf soxna Maskoratu Diouf ak soxna Moomi Diouf yoraatoon na itam soxna suñuy wax soxna Ami Saakura Mbay mook soxna Ami Saakura Mbay itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëñ Abdou Mbooy Diouf ak soxna Daay Diouf yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Batoor Jiite mook soxna Batoor Jiite itam nag am nañ benn bant muy soxna Alsaan Diouf yoroon na soxna suñuy wax soxna Ami Njoogu Mbay mook soxna Ami Njoogu Mbay itam nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Ceerno Ami Njoogu soxna Kura Ami Njoogu soxna Xadi Diouf soxna Safiyatu Juuf yoroon na soxna suñuy wax soxna Faati Jaañ mook soxna Faati Jaañ itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Xuddus Juuf sëriñ Omar Juuf sëriñ Ceerno Faati Jaañ yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Anta Jóob mook soxna Anta Jóob itam nag am nañ benn bant muy sëñ Abdul Karim Juuf yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Faati Sàmb mook soxna Faati Sàmb itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mbàkke Siidi Juuf ak soxna Musli Juuf yoroon na soxna suñuy wax soxna Busa Mbuup mook soxna Busa Mbuup itam nag am nañ benn bant muy sëriñ buupa yoroon na nag soxna suñuy wax soxna assu ndong mook soxna assu ndong nag ñaari bant nag lañ am muy ku ñuy wax nag soxna ummu kabir juufa ak soxna maam awa juufa soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yi itam nag la ci am ngir xamale leen nag soxna yooyu mu dëkkoo woon nag njaboot yooyu mu ci am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna faatimaa ngi juuf bi mu matee dem kër sëriñ ma dikke njaay bu ngaa xam nag lañ ko joxoon mook sëriñ ma dikke njaay nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ omar njaay ak soxna xadi njaay doom ji lañ ko jébbaloon mook sëriñ Malick Thioune itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Modou Bayel Thioune sëriñ Ibrahima Thioune ak soxna Musli Thioune doom ji nag di soxna Ami Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Paate Kan nag ca Mbooro nag lañ ko joxoon mook sëriñ Paate Kan itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee sëriñ Ibrahima Kan sëriñ Omar Kan sëriñ Thierno Kan soxna xadi Kan ak soxna Faati Kan doom ji nag di soxna Safiyatu Diouf Khady bi mu matee dem kër sëriñ Alioune Ñang nag lañ ko joxoon mook sëriñ Alioune Ñang nag am nañ ak soxna jobbe ñang doom ji nag ñuy wax soxna moomi xadi juufa bi mu matee dem kër sëriñ saaliwu njaay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ saaliwu njaay itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ seex daaru njaay sëriñ siidi njaay soxna maam njaay doom ji nag di soxna mu matee dem kër sëriñ moustapha cuun nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ moustapha cuun itam nag benn bant lañ am muy soxna maam awa cuun bu tuubaa doom ji nag di soxna maskurutu bi mu matee dem kër sëriñ cheikh saar nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ cheikh saar itam nag benn bant nag lañ am muy soxna Nogay Sarr ci dëkk bi nag di Puuta doom ji nag di soxna Daay Juufa sëriñ Amar Mbay Ndaw nag lañ ko joxoon muk sëriñ Amar Mbay Ndaw nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee na soxna Cuuna Mbay sëriñ Daaru Mbay ak soxna Maahi Mbay doom ji nag di soxna Kura Juufa bi mu matee dem kër sëriñ Ma Jóob Jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ma Jóob Jóob itim nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Jóob sëriñ Birahim Jóob sëriñ Demba Jóob ginnaaw bu soxna Kura Juuf nag jógee nag ci loxoy sëriñ Ma Jóob Jóob dañ ko jébbalaatoon nag ku ñu wax sëriñ Maam Góor Mbay Lo Diouf nag mook sëriñ maam góor mbay itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Masayer mbay sëriñ Omar mbay ak soxna ummi mbay doomam ji nag di soxna Xadi Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Basiiru Cuun nag lañ ko joxoon mook sëriñ Basiiru Cuun itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Cuun sëriñ Abdul Karim Cuun ak sëriñ Yuusufa Cuun doomam ji nag di soxna Sofiyatu Diouf di ñaareelu soxna Sofiyatoom bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Mati Cuun nag lañ ko joxoon mook sëriñ Cheikh Mati Cuun itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Daaru Cuun Baay Faal ak soxna xadi cuuna doom ji na di soxna muslimatu cuuna di ñaareelu soxna muslim bi mu matee dem kër sëriñ Ousseynou Guèye nag lañ ko joxoon mook sëriñ Ousseynou Guèye itam nag am nañ ak njaboota ñu ràññee ci nag sëriñ Cheikh Daaru Guèye sëriñ Ali Guèye sëriñ Abdul Karim Guèye sëriñ Góora Guèye ak sëriñ Malick Guèye doom ji nag di soxna Umu Kabir Diouf bi mu matee dem kër sëriñ moor Ngaye Diop nag lañ ko joxoon mook sëriñ moor Ngaye Diop itam nag am nañ ak njaboota ñu ràññee nag sëriñ Modou Diop sëriñ Abdou Diop ak sëriñ Koso Diop doom ji nag kër sëriñ Abdul Karim Cuun lañ ko joxoon mook sëriñ Abdul Karim Cuun itim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Góora Cuun Ceerno Cuun ak sëriñ Moodu Cuun njaboot yooyu ñu leen tuddal nag kër yiñ dem doom yañ fa am mooy lenn itim nag ci sëti sëriñ bi mu wéy des nag ci ginnaaw ron ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim lu mu am itim nag yit ko des itim nag ci dëkk yooyu nga xam ne ni itim nag ñoom la sanc boo delloo nag ci xasida gi sëriñ Moodu Mbay defal nag sëriñ Moor Juuf Jati bi mu nuyoo nag ni jullit nag baaxoo nag di nuyoo sant itim nag suñu boroom julli nag ci ab yonentam ngën gi mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam sant nag yaakaari murid yi di sëriñ Touba Seexul Xadiima mi ngi jëmale nag ay wayam ci ku ñuy wax nag sëriñ Moor Juuf Jati di ñu xamal nag ay jikkoom di ñu wax nag aw melokaanam mu jëmale ko nag ci ragal suñu boroom bokkoon na nag ci li ko tax a gën a kawe boole koog nag di liggéeyal nag gaa yi baax yi àndoon ak sëriñ Touba Seexul Xadiima mu nekkoon nag am murid saadeex nekkoon itam nag kuy jaamu yàlla nag gën gaa sell nag jaamu suñu boroom musta jóg nag di gindee ci njàngaleem nag ku baax sangam muy jël nag ay addiye nag di ko yit nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye nag addiye yu kawe addiye yoo xam ne nii nag jamono jooja nag soxla woon nañ nag addiye ya digle nag lu baax ak tere nag ab safaan boo ko doon xool nag kim ci doon nuróol nag mooy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru cig taalibe ak jëfe ndigal ak bëgg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim boo ci doon xool dal ku mu nuróol Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina nag ngay teg nag comme royukaayam royukaay nag ci dëddu àdduna royukaay itam nag ci sàmm ndigalul suñ borom li sëriñ Moor Juuf Jati nag kenn kim nag la ci woon ñu teelu na xasida gi sëriñ Moodu Mbay def ci sëriñ Moor Juuf jati di ñu wax nag jikkoom nag ak melokaanam ci kàllaamay arab xad kaana seex Moor Juuf rafiixal qadri fii taqwal ilaahi wa xidmatil budalaa'i maa zaala ramsan baarian waraan jala abdan muridan saadiqal araa'i maa zaala yahdi lil xadiimi waliyihi asnal hadaaya daxma fi daraa'i huwa fi l awaamiri wannawaahi mislu ibrahima faati l fardi fi l asfiyaa'i huwa fi l iraadati wal hidaayati mislu ibrahima fal si sidri fi i huwa qudwatun fi suhdi bal uswatun fi lamali saalihi xayru dawaa'i ñu takkoo takkoo takku nag def nañ ay nag sëriñ xaadim cuun sëtëm bu ñuy wax nag sëriñ habibu juuf nag def na ci moom nag ay way sëriñ lamin jóob itim nag di bindkat nag def na ci moom itim nag ay way sëriñ moodu mbay itim nag di sëriñ daara nag def na ci moom itim nag ak xasida sëtëm bu ñuy wax nag sëriñ moodu awa def na ci moom nag nag jaar jaaram nag la ci bind góor a mbay itam nag def na ci moom itam nag ay way ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ni itam nag def nañ ay way ci sëriñ moor juuf Jatti mii mu nekkoon nag ku jaxasoog mag toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ñu mën cee ràññee nag maam Ceerno Ibrahima Fatim Mbàkke Ndaamal Daaru tudde na nag ñeenti yoon doom maam Ceerno njabootam itam nag ginnaaw bu mu fi bàyyikoo daarul muxti itam nag la ñu jokk wala lu ci ëpp nag daaru muxti itam nag la ñu jokk mu nekkoon itam nag ak ku jaxasoog nag Cheikh Massamba Mbàkke mu nekki nag ku jaxasoog sëriñ Birahim Njaay bokkoon itam nag ci jàmbaar yi nekkoon nag ci ron ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim jaxasoo goog mu jaxasoo woon ak sëriñ birahim njaay ba nëgën itam nag ñaari njaboot yi itam nag ñu ngi koy dundal mu nekkoon itam nag ku nekkoon nag ci ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke bi fi cheikhul xadim bàyyi ko léppam nag cheikh mamadou moustapha mbàkke nag la ko joxoon mu nekkoon itam nag ku jaxasoog cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag daana def fu mu gisee njabootuk sëriñ moor juuf jati di leen nettali nag jàmbaaruk sëriñ moor juuf jati sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke itam nag naka noonu saa bu sëriñ moor juuf jati daana la wax nag li mu xam nag ci jàmbaaru cheikhul xadim jooju tundu soowu jant woowu ñu ci baree baree baree baree bari nag sëriñ Mor juuf jati nag la ñu yaakaar cheikhul xadim nag moo ko xamaloon ne ko ne soowu jant nag yow laa koy laaj ëllëg jàmbaari cheikhul xadim jiitim nag di bind katam di cheikh Moussa Ka ku fonkoon sëriñ Mor Diouf jati la bi muy lim cheikh yi sëriñ Touba seexal nag dañ sant Diouf ba muy wax nag ci sëriñ Mor Diouf jati dafa wax na sëriñ Bamba na moo ko seexal boole koog nag waa soowu jant jëmm jooju nag nekkin na ku fonk alxuraanul karim bi mu boobu nag di daaru mbooy taxawaloon na fa nag daaray alxuraanul karim mu joxoon ko nag ku ñuy wax sëriñ ibrahima gay juufa mu yor daaray alxuraan ja nag di jàng nag ak di jàngale sëñ ibra gay juuf moom lu ëpp sax ci njabootug nag sëriñ moor juuf jate gi moo leen jàngal alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di daaru mbooy daaru googu sax fala trondoo sëriñ abdul xuddoos mbàkke wii nag feeña jamono di sëriñ abdu mbooy moo tax sax ñu koy dàkkantele nag dëkk boobu sàkku woon na itam nag ci sëriñ ibrahima gay juufa ajjuma ju jot mook sëriñ Aliou Niang ñu ñëw nag ci dëkk boobu nag di daaru juufa def ko nag addiyee nag seexul xaddiima ba nëga ni sax kaamil boobu sax ñu ngi wéy nag di ko jàng di ci barkeelu nag ni ko sëriñ Mor Diouf jati nag daa defe amoon na kër itam nag ci dëkk bii nag di Touba jati Diouf itam nag lañ koy woowe kër gi soriwul dara nag poru moor lay bi ku ñuy wax sëriñ Modou Gueye jati nag la fa yabaloon ngir mu nekkal ko nag ci kërug tuubaa gi ak ku ñuy wax nag sëriñ moo Modou Mbay Aynu kër gi itam nag ba nëga ni itam mi ngi dund bu màggal jotee itam nag mbooleem njabootu sëriñ Mor ñuy dal doomam sëriñ Abdou Karim Diouf itam nag nekkoon na itam nag ci kërug Touba gi ba kii wuutu nag sëriñ Mor Diouf Jati di sëriñ Ceerno Diouf ci kërug Touba gi sax nag la feeñee jamono jamono ji nag njabootug doomam sëriñ Omar Diouf nag ñoo fa féetee jëmm jooju nag tur yu takku nag lañ koy woowee ñu mën cee ràññee nag tur wi ko waajuróom tudde woon nag di ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di Muhammadu man cee ràññee nag tur wi nag di Mor Jati man cee ràññee nag Daaru man cee ràññee nag sëriñ Daaru man cee ràññee nag Maam Mor man cee ràññee nag Momar nag ay turandoom mbooloo mu takkoo takku itam nag tudde nañ ko doom ci tundu kajoor woow bépp doom bu jigéen itam nag bu mu am kër gam dem doom jam fa am itam nag tuddee nañ ko ko sëriñ Moor Juuf Jati nag bi mu demee nag bay waaj a génn àdduna bindoon na nag am ndénkaane nag bàyyi fi ndénkaane bi nag mi nga ko jagleel doomam nag sëriñ di Mbàkke Juufa yow Muhammadu Juufa sa baay nag Muhammadu Juufa moo lay dénk nag ñett duniyaa nag mooy kërug liggéey ay sëg nag mooy kërug négante alaaxira nag mooy kërug fay jëf ku nekk nag ci àdduna di def lu baax nag wala ngay def def nag lu bon du tee nag nga dem nag ci ay sëkk buñ demee àllaaxira nag ñu ne ku def lu baax nag luy ay fayam ñu ne ajjanatullaahi ku def lu bon nag ñu ne ak fayam ñu ne sawara nag mooy ak payam ku deful dara itam nag ñu ne ak payam mooy dem sawara ba tey def lu baax nag ci lu bari ak def lu bon itam nag ci lu néew Sëriñ Tuubaa nag xamaloon na leen ne loolu nag ab tool la dagan nag moom moo nekk nag ci seen diggante tool bu baax bii waa kër ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam nag ñoo ci nekkoon bu ñu xiifee nag ba soxla aw ñam ñëw nag ci dagan mii wut nag lu ñu lekk bu ñu lekkee nag ba pare nag dellu nag ci tool bu baax bii buñ ci nekkee nag ba seen xel nekk nag ci wut soxna ñu ñëw nag ci dagan mii wut nag soxna faj nag seen aajo dagan mii nag ku fi yàgg léegi nag nga dellu nag ci xaraam mii looloo tax nag waa kër ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam buñ masaa ñëw nag ci dagan mii nag ba seen aajo faju ñu dellu nag ci lu baax lii yaram wi nga xam ne nii nag day xaraam sawara si diir yu sawar te nangoo jaamu suñu boroom nag ñoo ciy sax bopp bay am barke nopp yuy dégg ndigal nag moo cay sax Muhammadu Juuf nag sa baay nag moo la dénk loolu jàpp ci faaw nag te sax ci ndénkaan lii nag la sëriñ Mor Diouf Diatty dénkoon nag doomam ginnaaw ndénkaan loolu nag mu defoon ci doomam nag sëriñ Mbacke Sidi ku ñuy wax nag sëriñ moor Cuun bokkoon itim nag ci ñu nekkoon nag ci ginnaawam guddik àjjuma nag gi mu wujjee suñu boroom laataa muy wujje nag suñu boroom ndénkaan nag li mu mujjee def bu mu dajalee nag mag ña fa newoon keroog nag ci daaru juufa mi ngi leen di xamal ne nag bu suñu boroom defee nag li mu bëgg a def juur bu mag bii nag ma def nag ci ginnaaw kër gi jóor boobu nag mooy lobbu matt nag bi nekkoon nag ci ginnaaw kër gi su loolee nag tund wii wépp nag danañ xam ne nag daaru juuf nag dara xew na fa bu asamaan setee nag ba mbooloo mi dajee fi moo xam pël la moo xam naar la moo xam wolof la moo xam daal kum man di doon daal ci xeet yi buñ ko tere ñëw googu ñu fii ñëw nag mooy sama giseeg sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mu daat leen di ñaanal ñu tekki nag ab diir nag mu génn àdduna sëriñ Moor Juuf Jati mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu nag mu sancoon ñu gën koo xam nag ci daaru juufa ci ngoonuk ajjuma ñaar fukki fan ak nag ci weeru safar ci atum 1358 nag ci gàdd gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru safar ci atum 1358 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 21 avril 1939 vendredi 21 avril 1939 ñu yëgal ko nag ki fi nekkaloon sëriñ Touba Cheikhul Khadim ak rakku sëriñ Touba Cheikhul Khadim ba nag di maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke Ndaamal Daaru sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke nag mii doomam ak sëriñ ma sàmba Mbacke nag miy rakkam la fay yónnee nag ci dëkk boobu nag di Daaru Juuf ab taalibeem nag bu ñuy wax sëriñ Mor jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci dëkk boobu nag mu mujjee sanc di daaru juufa soo delloo nag ci way yii ko sëriñ du mbay nag way di jàngalekatu alxuraanul karim nekkit nag ci dëkk bi nag di tuubaa mi ngi ubbee nag xasida gi ci sant nag suñ boroom julli nag ci ab yonentam ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam sant nag ki murit yépp nag di sagoo nag di seexul xadiima mu fas yéenee sant nag kenn nag ci jàmbaari sëriñ tuubaa seexul xadiimi fas yéenoon a itam kenn nag ci gawari nag lislaam yi di ku ñuy wax nag mboolem nag waa sow jant mooy jant nag bi nga xam ne nii itam nag moo daa leeral itam nag ab goxam daa wàññi itam nag mboolem xeeti gox yi daa ko teg nag ci xam-xam yàlla na ko yàlla nag dolli nag di sotti ay waamee nag yërmande te mu may nag ak njabootam ak wér ak jàmm ak fan wu gudd ci darajay nag seexul xadim nag mi mu daa liggéeyal mi ngi tagg nag kenn nag ci jàmbaari sëriñ Tuubaa seexul xadim yi ki nga xam ne nii nag ab sang la woon waaye itam nag kilifa nag la woon nekkoon itam nag ab tab nekkoon itam nag nag ku lewet nekkoon yàlla nag bu daa topp nag ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiima mu nekkoon itam nag jëmm nag ju ragal yàlla jëmm itam nag ju sàmmante waaye jëmm itam nag ju baax a baax lu yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Moodu Mbay def ci marché bii nag mu jagleel nag sëriñ Moor Juuf Jati ci kàllaamay arab itam nag la ko def ñu teewlu ko siraajil qutril garbiyi wa badri ahlihi lmuniiri duja aafaqihi taqammadahu llahu wa birahmatihi lwaasia wa amadda dhurriyatahu siata maxduumihi asayxi alxadiimi alqutbi alkarim amdahu min fursaani ahmad alxadim sayxan waliyan sanadan nadban alim abdan mutiican taabican isna alqadim saxsan taqiyan warican barran karim sayxan murabbiyan bihimmatin cazim wa xidmatin sumarata atbaahi alqadim daaka assujaahu albaarihu alxibbu alsamim acni camiida algarbi manbaca alculum muuli alhadaaya addaxmi linnadbi alkarim sidqi aliraadati lil acmad alcazim wa daaka seex mor juuf axi شيخ الفضل العصيم سل الجود والعطاء ملجأ العديم قد كان رمزا بارزا لمن يروم أصفى سجايا سيرة القطب الشعيم قد كان زمز الغرب كاسف الخموم بدرا منيرا جاليا دجا بهيم قد كان معوى الدهفى غنما سليم خيسا مخيسا جالبا خير نعيم يهدي مريده الصراط المستقيم يقودهم يرسدهم نهجا قويم بجده وجهده الصافي العميم صاروا أئمة مصابيح الأنيم أبناؤه أحفاده سوع العلوم صاروا أدلاء الهدى مثل النجوم صيقه الخديم مصلحا يقيم نتيجة التصييح إصلاح يديم من يترعرح حسو قطبنا الحليم لا غرو أن يزير جئبسا حكيم من كان إبراهيم ذي الخلق العظيم أزوته يصبح النخبة الرحيم هذان ما صالا ملاسا مستديم لشيخ مرجوف حبس هذا الكريم من يتأدب تحت سيد عليم يزر ملاسا مانعا برا فهيم sëriñ Mor Diouf Diatty nag ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1939 ba ci atum 1984 kim faye woon sëriñ Touba Cheikhul Xadiima ñu ko doon wooye nag sëriñ Daaru Saynabu Juuf moo njëkk a nekk nag ab xalifaam ñaareelu xalifa sëriñ Moor Juuf Jati ci atum 1984 la ba ci atum 1995 di sëriñ Abdul Karim Juuf ñetteelu xalifa sëriñ Moor Juuf Jati ci atum 1995 la ba ci atum 2004 muy sëriñ Abdou Mbooy Juuf liñ tudde nag doomu sëriñ Moor Juuf Jati yu góor yi nag jeex tàkk nag ci ci kaw suufa sët yi nag tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam bi ñeenteelu xalifa sëriñ moor juuf jati muy sëriñ tuubaa juufa di doomu sëriñ daaru saynabu juufa mi njëkk wuutu nag sëriñ moor juufa moo fi toog nag ci atum 2004 nag ba ci atum 2013 juróomeelu xalifa sëriñ moor juuf jati di ñaareelu sët nag bu wuutu maamam muy sëriñ moodu faati mbay di doomu sëriñ daaru saynabu mi njëkk a wuutu nag sëriñ moor juuf jati nag ba tey moo fi toog nag ci atum 2013 ba ci atum 2015 juróom benn ñaareelu xalifa sëriñ moor juuf jati di ñetteelu sët nag bu wuutu maamam mooy sëriñ ceerno juufa doomu sëriñ abdou karim juufa mi nekkoon nag ñaareelu xalifa sëriñ moor juuf jati moo fi nekk nag ci atum 2015 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ moor juuf jati sëñ moor juuf jati nag am na bis nag bu buñ koy fàttaliku ci lu ñu tudde ak màggal bis bii dëppoog nag ñeen fukki guddi yim am nag ci biir suufa moom la nag bii jàppoon nag di sëriñ tuubaa juufa nekkoon nag ñeenteelu xalifaam di sët nag bi ko njëkk a wuutu moo jàppoon nag ne maamam nag war naa am nag bisug ñaan ñu jàpp nag fukki fan ak benn ci weer wi nag di rakk ji gàmmu mu dëppoog nag ñeen fukki guddeem ci bis boobu itam nag lañ koy fàttaliku jàppe ko nag ak ñaan ca dëkk bële nga xam ne nii nag fa la làqoo nag ñu denc ko fa muy daarul juufa ñuy ñaan ca jàmbaaru sëriñ Tuubaa seexul xadim nga ka fekkoon Mbàkke Kajoor seexul xadim jaayanteeg moom ki jote ngërëmam Tuubaa yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram nag ci barkeem réew mi itam na ko suñ boroom saafara ci darajay cheikhul xaddiim amiin xaddiim amiin xaddiim amiin